الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يحبه ربنا ويرضاه واحمده سبحانه واشكره على صوابع نعمه وعطاياه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه أما بعد mbokki jullit yi maa ngi dégg sama bopp ragal yàlla ñu ragal yàlla ci topp ay ndigalam ragal yàlla ci jëfe diine ragal yàlla ci sori lépp lu mu xaraamal ragal yàlla kat mooy ngën ji ndimbal loo xam ne jaam bi dana ko dimbandikoo ci addunaam waaye mooy ngën gi yóbbal bu muy yóbbuloo ngir ëllëg jëmu jëm ragal yàlla kóolute la ragal yàlla ak féex la am noflaay la ci xol waaye yërmande la ci jaam bi mbokki jullit ñu xam ne fàggu wërsëg ak wut ab dund mbir la moo xam ne suñu borom tabaraka wa taala soññe na ci lool te itam jàpp ndalal na ko lool ndax wuti rek la jëli rek la waaye liñ fiy soxla lépp mi ngi fi wa aataakum min kulli ma saaltumoo nee na lépp loo xam ne da ngeen ko aajowoo ba di ko laaj jox na leen ko wax na qul a innakum la takfuruuna billasi xalaqa al ard fi yawmayn wa taj'aluuna lahu andaada zalika rabbul alamin وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين نينا سوف سدفنا في لبوالم لن في سخلا بنوكي باركالكو قدر فيها أقواتها تيتم نيبكو نيبكي يم كجو ردك أمتي سواء للسائلين كور ردك جار فنغ ورا جار دكتش أم كون دفنا في ورسك بي وهي دفلنا لنتم temps bu ngeen ko mën a wute ndax nee na defal na leen bëccëg wa jaal na nahaara maashan wa banaynaa fawqakum sab'an sidaadan wa jaal naa siraajan wahaaja wa anzalna min almuxsiraati maan sajjaaja linuxrija bihi habban wa nabaata nee na defal na leen bëccëg muy wutukaayu ab dund def ci làmp bu leer muy jant bi siraajan wahaaja aajowul taal xur woo dugg lu mu lëndëm lëndëm man nga faa dugg lijjanti fa la nga fay lijjanti nee na mu wàcceel leen am ndox wa anzalna min al mu'sirati ma an sajjaaja ndox moo xam ne mu bari la génne leen ci gàncax kon nag li ngeen di soxla lépp suñu borom tabaraka wa taala jàpp nal na ko li ci des nag mooy dem wuti rek moo tax mu jóge ndi joxe ndigal ne dem leen fam famsu fii manaakibiha wa kuloo min risqi dox leen ci kaw suuf ngir lekk ci wërsegu yàlla wi nga xam ne moom la fi def kon jëli la rek jëli googu itam suñu borom tabaraka wa taala màggal ko lool ndax soo ko deful rek nit nga koy gàll te koo ko gàll mën na laa gàllankoor ci sa diine ndax say mbir yëpp day daal di nekk ci moom suñu borom tabaraka wa taala lënkale wuti googu alal ci yoonu yàlla ak jihaad fi sabilillah wuti googu sax alal joo mën a dunde dund bu lew bu dagan moom la jiital sax ci jihaad moom la ne yadribuuna fi l ard yabtaxuuna min fadlillah doog ne wa axaruuna yuxaatiluuna fi sabilillah ñii de dañuy tukki fu nekk ñu dem fa kon doone barab bi ma nekk rek bu ma fi amul wërsëg damay toog kon yàlla ma defa fàqir man ngaa dem ci beneen barab suufu yàlla yaatu na te lépp la fa nekk yàllaa ko fa def nee na ñiy tukki ngir di wuti ci xéewali yàlla yi ak ñi nga xam ne dañuy jihaat ci yoonu yàlla ñoom la suñu borom tabaraka wa taala dendal yonente bi alayhi salaatu wasalaam xibaar ne nit ki lekkul ñam wu gën loo xam ne moo ko liggéey ci loxom lu gën ci li ngay lekk mooy looy li mooy li nga xam ne yaa ko liggéeyal sa bopp ci sa loxo mu ne yonente bi yàlla bii ñu wax daawut moom day ci liggéeyub loxom la daan lekk wa allamnaahu sanata labusin lakum wa allamnaahu sanata labur wa allamnaa lahu alxadid أن يعمل سابغات وقدر في الشر وأعملوا صالحا سيني بروم نينا ماكو نويا لا لود وين نيت جي ديف دي تانغال وين جي بامو تانغ غير ني دوكو مانا لم داوود موم دي دال جيل وين رك لم كو نونو دوكو تانغال لم وين لوم جي بوجا ديف رك داكو سي ديف اب تيغ لا وون موم يونت بوب تي لا دان ليغي لو خامني موم لاي دوندي دي دوندال جابوتو موتاخ كون كين ورتا جومبا ليغي اب يونت باسكو ني بري دانيو جابو دي ديتو دينه وراتو لا ليغي buñ ko gisee muy liggéey sax ñu jàppale loolu aw xas la japp ne kenn waru ko gis ci marché ya, waru ta liggéey mom dal da wara kala rek tok nit ñi di ko andil lañ koy andil te loola bu boba namu manona waxe deug waxee ko mën waxe non ndax diko olof yi waxe nan ko ëmb sànqalam ëmb kersaam loola mo fay dal di nek motax kon liggéey mom jombul kenn nak sa surtout nitu diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam sàmm sahaba yi aboubacar commerçant la won ousmane non, ñun ñep ay kat dañ doon wut lu ñuy dundee waaye wéeruñu ko won kenn bokk na ci xekam yi nga xam ne luqmaan doon na ko wax ne doom di dénk doomam ne ko dimbandikool di fàggulu lew ngir nga bañ a tàbbi ci ñàkk ndax nee na ñàkk kat bu dalee nit ki faw bootul ñetti melokaan dana nekk ci moom diineem dana wayef ndax ñàkk ga dana ko yóbbee su bëggee am doonte loo xam ne luy wàññi diineem la bootul dana ca tàbbi am xelam itam dana wayef ndax duutu mën a xalaat daanaka xalaati nit ñi rek lay topp te itam ak jombaloom kersaam day mujj dem ndax santaas ba bu ne ñuy santaas ak la muy bëgg ci ñoom ba tax muy am kersa lool di leen laaj loola day mujj tax duutu amati kersa duutu amati dara lu muy jox sàkku lu lew ak yéwénal la nga am ci alal loolu day ci la diine di mucce ci la diine di mucce alal moom mooy garder sa diine moo tax borom mi nag jaahiduuna bi amwaalihim wa anfusihim amwaalihim la jiital bi am amwaalihim wa anfusihim fi sabilillah day ñoŋal sab der daf koy aar waaye dalay jox sax taarub xar kanam ndax laaj dafay yóbbu ndoxum kersa mi nekkoon ci kanam ba xar kanam ba day mujj wow lool ñàkk kersa lool waaye nag su fekkente ne nit ki mi ngi faggu am lu lew lu muy dunde xar kanamam dafay leer te itam dafay nekk ci teraanga mbokki jullit yi li ñu jublu nag ci fàggu du mën a amee rek waye fagul tey lañuy wax fagul tey ndax kat suñu borom tabaraku taala ku tey la du nangul lu dul lu tey lu tey moy lu dagan li ngay wut dagan na te nang ko itam dagan na halalan tayiba alal ji ñaar lay bolé ndax alal ji man na dagan dagan na ñu lek ko waye ni nga ko amee moo daganul masalan ki sàccum xar am xar baxna ma res na ko rendi lek ko waye ki mom xar mi mu bëgg rendi daganul ci mom ndax mom wala lo xamne ne sax yaa ko moom waaye la nga jënd mo dëggalul am xalam dem jënd am alalam dem jënd mbaam ko mom moom mbaam ma xeyna señ ko sax mom du ko mom sax ndax waru ko jënd kon alalam la ko jënde waye ne lam jënd mo nekkul tayiban kon alal di day boole ñaar li nga wut lu bax la nim ko wuté itam lu bax la suñu borom tabaraka taala digal na yonenti ne len de len lekk tay ngir ngeen jëf lu baax maanaam nit ki limuy lek ak limuy jëf dafa am relation lool kiy lekk lu teey lu dagan day yomb lool mu jaamu yàlla waaye ki nga xam ne lu xaraam lay lekk kooku mooy yàlla moo koy gën a yomb jaamu yàlla borom bi ne yaa ayuha rusul kuloo min a tayibaat wa amaloo saaliha kuloo min a tayibaat wa amaloo saaliha ñoo ànd lekk leen ci yu teey jëf lu baax inni bi ma taamaluuna alim yàlla ne li jëf kat xam naa ko waaye loolu yàlla digal yonent yi yëmbaliwu ko ci yonent yi de ñi gëm yàlla ñépp la ko digal ci beneen aaya mu ne yaa ayyuhal lazina amanu gis nga fee yaa ayyuhar rusul la waxoon fii mu ne yaa ayyuhal lazina amanu kuloo min tayibaati maa rasaqnaakum waskuru lillah in kuntum iyaahu taabudun bu fekkee yàlla rek ngeen bëgg a jaamu tudd ngeen ko bokkaale ak dara bokk na ca la leen ciy dimbali ngeen di fàggu lu lew lu dagan di ko lekk loolu mooy tax ngeen mën a jaamu yàlla bokk na ci meññetum ngëm yàlla mi a mag moy nga fàggu lew mooy sa loxo set loo moomul doo ko laal lu jàmbur moom ci sa loxo nga jox ko ko saw làmmiñ mucc doo ca wax lu ñaaw ndax kat wat tayibaatu li tayibiin ñi nga xam ne ñoo teey ñoo yeeyooyu tey yi wat tayibaatu li tayibiin bokk na ci yi gën a màgg ci jubluwaayu gi ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu leen di daganalal yi teey yu yuxillu lahumu tayibaat wa yuxarrimu alayhim alxabaa'is di leen wan yi nga xam ne moo teey ne lii moo dagan wutal wut leen ko waaye yii moo xaraam moytu leen ko loolu ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ca la ci gën a rëy ñu ne ci abdullah ibni omar amr radiallahu anhuma mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ñeent daal ku mu nekk ci yow leneen loolu rëcc ci àdduna bul ci am soxla xifsu amaana muy nga ku wóor koo xam ne ku mën a sàmm kóllëre nga ko doy nga luñ la doyloo moo xam luñ la dénk la moo xam luñ la wax la waaye daal da ko sàmm ñaareel ba ko xadis nga doon ku dëggu ci say wax ñetteel ba xusnu xaliqa nga doon ko rafet jikko ñeenteel ba iffatun fii tuuma nga doon ku set ca la ngay lekk la ngay jëfandikoo set wecc dara lu xaraam wala lu lënt doo ko tàbbal ci li ngay jëfandikoo nee na ñeent yi daal ku ko yàlla baaxe moom leneen loo amul ci àdduna itam bu ko jàmbat sàkku lu lew ak di ko dàkk di ko jéem a wut lu war la ndax kat li ngay wut bul japp ne lu romb rek yalla na yowmal khiyam ken du buuse fi nga taxaw di jall di duggu aljanna te fekk ñu la li nga doon wut foko doon wuté ak noko doon wuté ak bi nga ko amé fan nga ko pas, lolu bokku na ci li ñi laaj nit ki yowmal khiyam moo tax kon nit ki lu muy wut bu mu ak njàmbaar rek ne lu mu am rek mom baxna ni ko ñen ñi waxé ne halal ma halla fil yat lu lew dal mooy lu tabbi ci loxo baatu xalaal boobu mag ñi dañoo jàppoon ne alal warta nekk lu dul lu lew moo tax ci lañ jëlee baatu alal alal ci xalaal la jóge xalaal mooy mooy lu lew alal joo gis ak daa lew Batu halal boobu ci arab moom la waro fi jël di ko tuddee alal alal kon lu xaraam boobu bokku ci kon loo am mu xaraam rek tuddatul alal kon lu yor lu xaraam bu ñu diw daa am alal déedéet daa am halal, diw de am na xalaal lañ daan wax mooy de lim diw de lim yor lépp dagan lépp lew lépp nam ko wute jaar na yor mbokki jullit yi nañu xol khalifatu rasulillah ki nga xamne mo moom wutu woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam di abi as-siddiq ni ñu doon moy to ñom jëfëndiko lo xamne lu haram la ben surgam andiloon na ko aw ñam mu lek ko ba nopi ki ko andiloon ne ko ndax xam nga fuma jëlé li mala andil mu ne ko déedéet mu ne ko maa ko jënd ci alal jo xamne bama nekké bo nekkul ci islam nekk ci ceddo gi la defoon ay tapalé ndax ay nit ba am alal gi ci laa jënd lii ma la jox Aboubacar dafa daal di duggal loxoom ci gémmiñam di looju di génn di waccu di génn li nga xam ne moo nekkoon ci biiram mu ne bu te ne génn lu dul ne sama bakkan da ciy desaale yi dinaa ko génne daal di wax ak suñu borom tabaraka wa ne yàlla maa ngi lay jéggalu nag li nga xam ne mënuma koo génne xas na dugg ci samay siddiit jaxasoo na ci samay mbàq ba mënatuma koo génne yow suñu borom tabaraka wa taala maa ngi la koy jéggalu naka noonu Omar ibnul Xataab mas nañ ko andil am soow mu naan ko soow mi yéem ko lool waaye ki ko ko andiloon ne ko soow mi kat dama romb gëleem yi nga xam ne ñooy yi asaka yi gëleem yi nga xam dañ ko génne asaka ñuy nekk ci am ndox di fa naan marat ca moom laa la andil nii omar dafa dal di tàmbali di looju moom itam ni gëleem yooyu nga xam ne sarax la miskin yee ko moom loolu man waruma caa lekk dara noonu la def moom itam di waccu ba génne mboolem la nga xam ne moo duggoon ci biiram naka noonu jigéen ju baax ndax ñu baree baree bari ñuy tabbi ci lu xaraam itam léegi léeg seeni i boroom seen soxna ñoo leen di teg ay pression teg leen lu ñu attanut teg leen loo xam ne duñ ko man ba dañuy teg seen njërek fu ñu mën a amee dara rek am ko moo tax jigéen ñu baax ñi dañu daan dégg seen boroom kër buy xëy ne ko daal ragalal yàlla boo mënee am loo dagan daal baax na mais soo ko mënta am ñun mën na noo muñu xiif waaye mënunoo muñ safara maanaam nga bàyyi nu nu xiif moo nu gënal nga andil nu loo xam ne buñ ko lekkee bu ëllëgee daf nuy dugal safara ndax kat yonent bi sallallahu alayhi moo ne wépp yàpp woo xam ne la ko dundal lépp lu xaraam la sawara moo ci gën a koo xam ne saw yaram li ko dundal lépp lu xaraam la sawara moo ci gën a moo tax itam boobu jigéen ñi ak njaboot gi war ñuy nañuy dimbali seen i boroom kër bañ leen di teg lu ñu attanut waaye kuñ ko teg itam nga am ful lay bañ koo tegoo nag di def rek la nga man di wut wutiin wu dagal ñooñu ñooy ñu baax ñooñu nga xam ne gis nga leen ñuy génne lu xaraam ak lu lënt lu tabbi ci seen i biir donte ba muy dugg sax ñoom xamuñu ko kon day mel ne ñoom teyuñu ko woon mënoon nañ ko jàppeel woyof waaye gannaaw lu xaraam dugg na ci seen biir rek moom bëgguñu ko faa bàyyi waaye ganaaw bi nag ñeneen wutu leen boo suñu borom tabaraka wa taala ne ñu baax ñi asaabiqoon asaabiqoon loolu sullatun min al awalin waaye wa xalilun min al axirin ñu jëkk ña bari ne lañ ca lool waaye ñu mujj ñi néew le nañ ci mooy lu mel nii xam ko def kuy def lu mel ne li Aboubacar def wala li Omar def radiallahu anhuma ci jamono ji néew na lool nit ñi kay legi li ñi damo moy def naa aw kaaj def naa aw kaaj fekk fekkee kaaj nak ngañ la tuddu ngañ lay indi kaaj wo gis rek ngañ lay indi maanaam jaay na nit ki lo xamne ne li ko jaayee warul wona jar li dama ko nax aw kaaj la fekk na ngañ la lo xamne lam lay yakal mu upp la nga japp ni mom nga ci jallo ndax yam yam riba wa yurbi sadaqat lepp lo dugal ci sa alal te deganut day yàqaale la fa nekkon lepp barke ba day dañ Amali liy jariñ nag mooy loo xam da ko def ngir yalla yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tuddu waajo xamne ma ngay kër kër yi di tukki sonn lool kawaru bop ba jaxaso lool mu fundoñ lool waye nak ma ngay ñaan yalla naan ya rabb ya rabb waye neena lamuy lek dafa haram lamuy sol dafa haram lañu ko dundale won ba muy gone lepp dafa haram mu ne koku nuko yalla ndax borom bi kat bam ne wuyu la fal yastajibu na ngeen mel noo xam ne da ngeen yayoo ma wuyu leen yàlla ñëpp la mën a wuyu waaye nag am na nooy mel noo xam ne moom du nangu sag ñaan te bokk na ca nag di jëfandikoo loo xam ne lu xaram la waa jooju nga xam ne kon mboolem luy xeeti toroxlu mboolem luy xeeti aajo boole na ko yërëmtalu lool ak ñàkkamtar lool waaye dagg gi mu dagg digganteem ak boroomam ci bàyyiwul lu xaraam li ko yàlla tere loolu moo ko xañ ndimbalul suñu borom tabaraka wa taala moo ko xañ yàlla nangu ak ñaanam ndax lekk gi muy lekk lu xaraam ak waddoo gi muy waddoo lu xaraam ak yaramam bi nga xam ne lépp ñi ngi ko dundale ci lu xaraam moo tax suñu borom tabaraka wa taala delloo ko mu sooy mbokki julli lekk lu xaraam dafay gumbaloo gisub xol kuy lekk lu xaraam ab xolam day gumba du gis ndax xol day gis borom bi nee na laa taamal absaar walakin taamal xulubu allati fi sudur borom bi ne ne bët yi du ñu gumba de bët du gumba day muuru rek waaye xel maa ngi léeg-léeg koo xam ne bët yi daa muuru la mu xam yow ak la mu jàng mënoo koo jàng fa mën a yóbbu boppam itam yow sax boo tuddoo fa mën a yóbbu sa bopp ndax xel maa ngi waaye nag nee na ngumba dëgg nag mooy ngumba xol te lekk lu xaraam day gumbaloo xol waaye dafay doyadal diine waaye day wowal ab xol waaye day lëndëmal xalaat day tàyyelloo ay cër ci topp yàlla waaye day dugal nit ki ci fiir yi bëgg àdduna day yiir ak ñaanam yàlla du ko nangu ndax suñ borom kat nee na innama yataqabbalu llaahu min al muttaqin yàlla ñi muy nangul seenu ñaan mooy ñi ragal yàlla pàggu téef yi nga xam ne yu xaraam la wutiin wu xaraam bi xew léegi ci jamono jamono ji bari na alal lool li fi nekk sax mën ngaa wax ne ëpp na nit ñi waaye tey la nit di gën a sonn ndax la barke ba moo dem wutiin wu xaraam day noj ci barke barke mooy li am ndax li am lu bari bari la nga ca moom mooy la nga ca jariñoo la nga ca jariñoo rek nga ca moom li ci des da nga ko téyeel ñeneen ñi rek waaye la nga ca mën a jariñoo loola nga ca am bari waa na ko bari aral lool waaye doo gis dara mu def ko ca rawatina sax surtout jëm ci diinam dafay jóge rek nit ñi miraas ko séddoo ay milliards doo mën ne hôpital bi moo ko fi tabax doo mën ne daara ji moo ko fi def doo mën ne moo dimbali fàqir yii dara defu ko ci li mu doon def ci boppam la ko doon def te nit séddoo nañ ko moomatu ko kon gis nga ne kon alal ji amul barke alal ji amul barke waaye nit ñi bañ nañ ko ba fi mu ne ku am alal sax borom barke la ko ah diw de borom barke la borom alal alal taxut am barke alal ak barke bokkul nit ki mën naa ñàkk lool te am barke booy li muy soxla mi ngi faju dencul dara waaye lu mu soxla te muy lu mënta ñàkk loo xam ne bakkanam taxut suñu borom jàpp ndalal ko la loola faju loolay barke moo tax borom bi ne walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxnaa alayhi barakaat néewul arsaaq la fataxnaa alayhi barakaat min asamaai wal ard nee na nit ñi bu ñu gëmoon raal yàlla ragal yàlla yow nak bo meunta ànd ak nit ñi def ko it yow defal ko sa bop ndax neena mbolo mépp suñu andon gëm yàlla ragal yàlla aduna bépp ay neex wa an law istaqaamu ala tariqati la asqaynahum ma an qadaqa li naftinahum fi ndax yàlla andi andiwul nit ñi fi pour sonal leen da leen fi andi gën ñu jaamu ko te li tax ñu jaamu ko itam def nako mi ngi mel ki nga tek ci baram muy lay liggeel ya koy andi lañ ya koy andi mom day liggéey rek wa ma min dabatin fil ard illa ala allah risquha yàlla mo lu andi ci àdduna dinu fi jaamu lo yàlla kon li nu fiy soxla lépp andil nañu ko nañ dem wuti ko rek looloo ci des waaye da nga woo jaar ci wuti win wu jaar yoon bëgg koo am te doo sonn bëgg koo am ci ay tappale loolu di ko dunde ak di ko dunde la sa njaboot soobu ribaa soobu carte siif alale jàmbur càcc booy jaay di mànkil njaay ma boo dee peese peese ba du mat boo dee natt natt ba du mat li ngay jaay bu sikkee bu amee ayib nga nëbb ko di jëfandikoo ak njibar ak i gisaane ak i di lek alali nit ñi ci neen di lek alali ay jirim di giñ giñ yo xamne dara du ca deug di wor di njublang di jëfëndiko neen di war nit di lo digënté nit do ko def loolu mo tasaaroo lool ci jamono léegi loolu ñu ay door kati mart ño xamne mom jamono bu ne ñaga tok seen kër di lab ay Yunyuman yu ñu mëna a alali nit ñi te jamono yombal ko lol, nak lool ndax man nga tok fi nga tok jëfandikoo jumtukaay yi am ba lekk alal nit te fi nga toog doo fa jóge ba tax na yooyu yëpp nag moo taxoon yonente tabi sallallahu alayhi wasallam ne woon jamono gi ñëw joo xam ne nit ki duutu faale li mu am fu mu ko jële ndax dagan na wala xaram ñu bari seetatuñ loolu léegi boo fi nekkee naan da ngay moytu lu xaraam sax dañ na la yow de bay boo nga dem toog doo am dara yow doo am dara waaye ñu mel noonu suñu borom tabaraka wa taala du nangu seenu ñaan lañuy am itam lu ñu bari bari barke du ca nekk duñ ko jariñoo nañ ko war a jariñoo mbokki julli nañu samonté ak yalla li yalla xaraamal ñu moytu ko nañu samonté ak jam ñi fexeel ba lek yi fi kenn ndax kat bisa ngi ñew fo xamne nga di fay alal amu fa alal amu fa boba lu fa am tuyaba tuyaba ngay fayee bu boba ci tuyaba ñepp ko soxla la nga ci am sax doyut tuyaba la nga ci am doyut soxla nga mu yok lool nga nar ko wañi di ko ñeneen so amatu tuyaba yo faye bakkar ragal nga ko lool so sañoon li nga ci yor da ngay tagok mom ñuy jël bakkar keneen di la jox fofu lo rek fam yo xiyam tuyaaba ngay faye boo ko amul nga faye bàkkaar jël bàkkaar yi nit ñi faye leen ko mbokk yi kon nañuy matale ay kóllëre loo diggante nanga nga ko matale soo demee ba doo ko mën a matal nga joxe ngàdd di wattandiku wor di wattandiku tadliis tadliis mooy dendale ay mbir wan nit ki lii ba mu ne baax na wala loolu la waxaale jënd nga jaay ko leneen lu bokkul ak loolu waaye dañoo nuróo ba du ko mën a xàmmee wattandiku itam mu maata la mooy digganteeg nit ki moo xam bor la boo ko war a fay ngay wéy rek di law lawi di wuti lay di dem bam loru ca mom lu lew ku koy lek day leral say sa xol day sawarloo ay cër day yewenal say mbir day weral saw yaram day tax suñu borom tabaraka wa taala ko sag ñaan kon nak mbokk yi nañu bàyyi waat xel bu baax a baax te xamne fi ci aduna li nu fi andi moy jaamu yalla kon nak li nu fi tax ne ba meuna jaamu yalla bu mu yaq li nu fi andi ndax lo fi meuna am mom marsala marché bi dafa am loo xam ne loo fi am am ci marché bi nga koy bàyyi mooy alali àdduna ji loo fi am moom bu du ñibbi kër ga te marché bi da nga fiy ñëw ngir dugg loo yóbbu sa kër pour man koo jariñoo ji lay dem kër ga nag mooy jaamu yàlla gi amma marché bi moom soo fi nekkee loo fi bari la bari la te li nga yor alali marché bi la booy dem fi nga koy baax ci marché bi la dëkk bitig yeeg taabal yeeg yooyu moom loo ko bari la bari la kenn du ko yaru di yóbbu kër ga foofu lañ koy bàyyi mooy alali àdduna yi loo ko bari la bari la bu marché bi tasee ba ngay dem yowmal xiyam fi ngay bàyyi lépp bàyyi ko waa marché bi muy waa àdduna la nga ca jot a jënd nag jot koo am loola ngay yóbbu te mooy jaamu yàlla kon nag nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax a baax wut lu tax ñu man feene bom nu yàqal li tax nu ne fi ñaari baat yooyu daa mat a xàmmee li la fi tax a ne ak li la fi tax a mën a ne li la fi tax ak li la fi tax a mën ne lu la fi tax a ne jaamu yàlla lu la fi tax a mën ne liggéey liggéey bu lew ba am loo dundee mooy tax nga man feene ndax kat loolu boo ko amul itam li la fi indi woon dootoo ko kon nak nañu bàyyi xel bu baax aaya bi nga xamne mo mujjé wàcc wala bok bok na ci mujjé wàcc borom bi ne wattaqu yawman turjauna fihi ila allah wattandiku len wajal len bis bo xamne ci lañ len di delo ci yàlla suma tuwfa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamuun te la bu boba kat bakkan bu nek mbollem lu bu jëfoon danañ ko matal lépp fay ko ko yàlla nu borom bi tabaaraku taala dëppale ak njub yàlla nu borom bi tabaaraku taala musal ci lépp lo xamne lu haram la da jàpp ndal du wërsëg bo xamne wu lew la wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain